maa ngi leen di nuyu. Mhm. te di leen sant di leen sargal si bés bi. aywa Chérif bës bi seen bës la de mais dafa tombe ak euh, beneen xew-xew. waaw jamono ji xam naa sax euh, huit heures jot na euh, normalement bu dee affaire bi inscrire nañ ko au mën na soit euh, audience bi commencé ci procès bi nga xamante ni juróom benn sage femme la bu dee ko normalement war naa am xam naa dinañ ci ñëwaat ci journée bi uh-huh. li ko waraloon nag mooy soxna si nga xamante ni daf wanoon loor astu soxna génn àdduna ñu joxoñ ci baaraamu tuuma ay sage femme juróom benn lan woon ñeent ña moom fi mu toll bientôt deux semaines ñi ngi ci kaso bi uh-huh. ñaar ñi doona wanoon lan moo tax ñu boo joxoon leen liberté provisoire noo dunda situation bi nga xamante sage femme ñi ngi koy vivre par rapport à l'affaire Astou Sokhna Euh, merci. Euh, C'est toujours poignant quand même. Parce que le problème qui se pose, moi, d'une part, on a perdu une vie, ça fait mal. D'autre part, nous, avons des sages-femmes mmh. dont leurs places sont à la maternité et qui sont incarcérées. Donc, euh, c'est de la peine pour les sages-femmes. parce qu'ils ont leur place à la maternité. et au moment où son sont dans les. wolof soxna marié wolof wolof. ah d'accord <laughs> ah, ok, okay. donc euh, je disais que yëf yi dafa metti daal. Hmm. metti na ndax ki ñu perte dafa ànd ak bakkanam doomam ak moom ñu dem mu metti lool ndax benn sage-femme fajul pour nit di dee bi ci des nag muy ñi nga xam ni moom mooy suñu collègue yi nga xam ni ñoom dañ leen incarcéré ñooñu seen place ma nga maternité. te au moment bi may wax ak yéen walla temps bi nga xamee ni ñoom ñu ngi nekk ci maternité yi am na ay jigéen ñoo xam ni soxla nañu seeni ay faj ndax xam naa ni li ma wóor te wóor mooy que ni en fait plateau technique ba fa nekkoon wàññeeku na te bu wàññeekoo charge de travail bi dina gën a yokk pour ñi ci des mais aussi dina am pâtir sur qualité des soins mm-hmm. ba tax na man damay ñaan rek ñu defal leen benn procès équitable un bon procès ah bàyyi leen ñu dem ndaxte tout simplement. loolu koy du procès équitable nag madame. ah xool ne bàyyi leen dem day koy yoon day def liggéeyam. juge bi moom élément yi mu am ci la mën a sukkandiku ngir soit mu da leen di bàyyi wala mu da leen di téye. sama vœu daal mooy ñu bàyyi leen. Hmm. xamal tax ma bëgg ñu bàyyi leen. ñàkk bakkanam nag duñ ko rendre justice. si bu dee am na ñu def. xam nga lan la c'est-à-dire que affaire bi mosul am Sénégal. Hmm. comme mosul am Sénégal te li yëpp am ci. te xam naa ni nit ñi ak sage-femme yi xam nañu ni fii toll nii. ku defati ñu def la donc suñu leen bàyyee ça sera vraiment benn euh, leçon par rapport ak ñi nga xam ni ñoom daaw ñoon def seen liggéey normalement moo tax ma wax loolu madame tey jii euh, ci mu tombeek euh, bés bu ñuy jagleel sages-femmes yi ci àdduna bi ñu siy jugé ay sages fii ci Sénégal yow naka nga dundee loolu ah vraiment lu ma metti la nag parce que xam nga la célébration de la journée de la sage-femme maanaam bésu sage-femme yi mm-hmm. bés la boo xam ni dafa waroon normalement tombe ak loo xam ni ñun dañu war a ànd ak population bi xam xamle ñun ñooy kan xamle naka la suñu taxawaay amee solo ci biir société bi xamle aussi population bi ne leen ñun suñuy problème lii la dañu bëgg ngeen jàppaleenu ci donc bu fekkente ni loolu tey anéantir nañ ko ah metti na métti na trop. Euh, tey bëggoon naa xam seen programme journée bi lan la est-ce que euh, également di ngeen toog waxtaan ci seen biir xool euh, pombiteer bi bëgg a yàq saaku bi ñu génne ko ndax gis nañu quand même génération Marième Fall sage-femme. Euh, wuute na ak génération yi naam am na quand même des sages-femmes exceptionnelles qui font un travail formidable mais brebis galeuse ci corporation yëpp la nekk est-ce que également yéen ngi xool bëccëg yu mel nii ngeen toog quand même waxtaanee xool jafe-jafe parce que jafe-jafe am na ci accueil jafe-jafe am na euh, ci ni ñuy traiter patient yi problème yi bëri na soxna si. dëgg la dëgg la dëgg la ah li ma xam daal mooy lenn que ni tey jii dañu décider woon ne. dañuy def benn espèce su ndëpp bu ndaw daal suñu biir. ndëpp ndëpp bu ndaw waaw. Mm. nga xam ni euh, ñiy wax ñëpp dëgg la. Mm. parce que y de fumée sans feu. te jigéen ñi am na ci ñu bare ñoo xam ni sonn nañ ci maternité yi. Mm-hmm. donc dañu bëggoon a toog foofu à Louga pour waxtaane ko. mais avant loolu dañu planifier une journée de la sage femme boo xam ne dañu def porte ouverte sur la profession parce que nag euh, Fati c'est une profession qui est très mal connue par les populations très mal connue par les populations li ci ëpp sax da ngay dem garde ji nga gis benn femme boo xam ne day ñëw elle est aux aguets prête à t'attaquer parce que tout simplement dehors on lui a dit que ba ma demee maternité nii la woon ak nii donc normalement ce qui devait se faire aujourd'hui mooy toog waxtaan suñu biir jéem a lijjanti bagages yi mais le problème qui se pose mooy suñu waxtaanee nii rek nit ñi dañuy dem te duñu def la ñu war a def moo tax toujours may crier ne nañu teg ordre des sages-femmes mmh. éthique et déontologie de la sage-femme il faut que ñu koy respecter l'éthique et la déontologie mmh. il faudrait que mu am ay valeurs ay principes yuy sous suñu profession yoo xam ne dañu ko édicter nit ñi war ko mën di ko jëfe donc loolu lu am solo la mais tey comme ñoom ñu nga sa procès ba gaw ma ni daan ci mën a waxtaan. Hmm. boo waree def benn évaluation euh, système bu njëkk ba ak léegi euh, ban fan fan la ñu mën a wax na ne foofu la ñu toll. yaa système bu njëkk ba ak bu léegi vraiment comparaison n'est pas raison comme on dit. <laughs> mais madame nag yàgg nañoo décrier sage-femme. xëy na système bu njëkk ak léegi est-ce que am na. xëy na léegi réseaux sociaux yi am on a libéré la parole mais yàgg nañoo décrier taxawaayu sage-femme. moins avant qu'aujourd'hui waaw léegi jamono soppeeku nag parce que bu njëkkoon daan nga dem ci ay dëkk yoo xam ne sage-femme ba dina fa am ay turandoo yu bari parce que taxawaayam. moom ah, moom la woon. waaw man bari naa ci turandoo waaw bu parce que léegi am na ñoo xam ne peut-être dañuy def. Euh, métier bi par dépit comme ni ko ñenn ñi defee ci journalisme par dépit parce que dem nga ba amatoo dara lu fi sës bon lii moo fi sës xaaral ma ma liggéey ko peut-être amour ak passion bi mais bon lu mu ci mën a dem li ko war a sutand wax na professionnalisme bi. tout à fait tout à fait tout à fait man Chérif sage-femme bu njëkk ba man de liggéey naa ba ba may at mi beneen école di jàngiwaat leneen. 80 pour cent yëre yi may sol malaat yee ma ko may mosuma jaay garab donc. su fekkoon te sage-femme day jaay garab. bul ma dugalati. <laughs> non en fait. nit ñi wax nañ ni da ngay ñëw salle d'accouchement. ñu jël benn perfusion euh, defal ko nit mu pare ñu defaatal la ko te fekk jënd nga garab te garab googu duñ ko gis. Mm-hmm. sage femme bi la wala du moom je ne sais pas. Mm-hmm. mais décrier nañ ko. Mm-hmm. suñu ñun jaay garab. waaye itam leneen dañ ko defoon mooy que ni dañu amoon yërmande ak empathie. dañu amoon humanisme ci li ñuy def. xam nga léegi la science à évolué. ñoom am nañu échographie pour seet lépp. mais ñun amuñu woon échographie suñu deux doigts la ñu amoon te luñ la ci wax nag moo doon dëgg. la science a évolué léegi dañuy def ay examen ay examen biologique yoo xam ne daf leen di aider ci seen diagnostic ñun suñu diagnostic suñu loxo la woon suñu bët suñu dégg-dégg ak suñu waxtaan ak suñu client léegi nag ba nga xamee ni yooyu yëpp am na normalement les sages-femmes d'aujourd'hui devraient être exemplaires. Mmh. mais malheureusement comportement yi c'est des comportement à décrier. Mmh. Mmh. parce que bu ñu ñëwee ci affaire asu soxna il faut ñu ñëwaat ci parce que gis nañ l'observateur ci témoignage yi devant le juge. kenn ki nee na moo signé certificat de genre de mort bi est-ce que c'est qu'une sage-femme war naa quand même constater décès bay signé certificat de genre de mort jamais li ma doon wax depuis le bi loolu lay xam naa ni mere nañ ma ci dama ni leen am na incompétence incompétence mooy lan nga seet nit ki muy matu mu ne la sama biir day metti te yeggale woo examen bi keneen ki sax nee na la mu doon examiner bind ko hmm. c'est grave parce que le dossier de la maternité c'est un dossier médico-légal beneen bi ci des mooy affaire certificat bi mais jamais de la vie on leur a on leur a jamais dit qu'une sage-femme était devait dafa waroon di bind certificat de genre de mort. Hmm. kenn jàngaluñu ko suñu curricula de formation. Hmm. et que quel que soit ñun ñun moo ko def loo mais gynécologue bi du chef am chef am la ci liggéey bi. Hmm. mais hiérarchiquement moo ko chef. c'est ça mais man sama prérogative dama koy xam ma xam ne lii war naa ko def lii waruma ko def. tout à fait quitte à que attendre jusqu'à mu ñëw. may doog muy doog ko def mais man duma ko def. Hmm. parce que c'est une faute grave. moom la ñu wax clause de conscience ñun bu la santee loo xamante ni kii wut mën ngaa lànk. ñun de dañuy lànk dañ daan hmm. lànk de bu njëkk. te en moyen suñu salle parce que gannaaw loolu c'est masqué lu am ce n'est plus une faute. maanaam. nga bind set loo xamante ne yow waroo ko bind te am na lu muy am ba pare kon yow looy nëbb ba def sa certificat c'est encore plus grave du faute. ah c'est plus grave que la faute mais bien sûr c'est plus donc, grave donc la contradiction mooy lu ngay wax mooy comment nit mun na ñàkk bakkanam ñu àgg foo xamante ne kii def na lu cest nit ki ñàkk na nga def leneen ak leneen et vous voulez les gens rentrent c'est ça la justice. non je dis pas ça. Charles je dis pas ça. xam naa ni moom dama lay déglu tout le temps tu amènes toujours la contradiction dama ni bu doon sama sago ñu bàyyi leen su fekkee comme dañu ni parents yi baal nañ leen. mais lii affaire civile la. et pénale. xam naa ni la loi va sévir mais c'est mon vœu. c'est man su doon sama sago ñu bàyyi leen. Mhm. mais la va faire ce qu'il a à faire. Mhm. d'accord. donc nit ñàkk na bakkanam benn ñaareel ba bindal nañ ko certificat de euh, de décès boo xam ni vraiment wala maa ngi wax naissance parce que ñun loolu lañu ñu autorisé ñu defar certificat de naissance mais certificat de décès ñu ko def donc boobu c'est une faute c'est une très grande faute Charles loo ko mënti tudde rek ñun loolu la ñu ci xam daal c'est une faute mm-hmm. donc muy leneen loo xam ni lu garaaw la aussi mais man sama sama opinion mooy. Hmm. ak sama vœu. mooy ñu baal leen te yàlla rek tax ndax xalaat naa ne bu ñu leen baalee sage femme yi ni ñu sonnee ci affaire bi. Mhm. wallaay kon xëy na affaire bi dina wàññeeku. Mhm. maanaam comportement mais yaa ngi wax mais est-ce que du poser problème mu formation maanaam ñu xam seen prérogative fan nan war a yem vous parlez d'éthique loolu on l'apprend à l'école. te école bi ko fi doon jàngale fii ENDSS tëj na dafa mel ni léegi privé yor santé bi ci wàllu. waaw mais ENDSS mu ngi mu ngi raam pour tëj. day dem côté sage femme yi surtout. côté sage femme yëpp day raam day day raam pour tëj parce que dafay nekk institut wala mu dem université. Mm-hmm. mais problème bi mooy lenn xam nga dans les modules de formation du curriculum dafa am lu ñu tuddee la profession de sage femme l' exercice de la profession de sage femme. Mm-hmm. ñu daal di am li ñu tuddee itam l' def euh, ay articles ci déontologie. Mm-hmm. wax sage femme bi naka la mën a nekkee. sage femme bi lan la war a mën a def daañ leen ko jàngal mhm. même à l'examen dañ koy génne souvent mhm. mais problème bi mooy jëfe bi jëfe bi mooy suñu problème et ñàkk jëfe bi xam nga lu ko waral aussi mhm. absence de supervision Mmh. On ne peut pas ne pas superviser les personnes qui travaillent en santé. Mmh. Santé, c'est quelque chose de dynamique. c'est dynamique mais aussi su fekkente ni da nga toog ci benn poste kenn xoolu la. Mm. da ngay foog ni li ngiy def li ngay def mu ngi baax alors que yaa ngi dem dans la routine. Mm. et c'est ce qui fait que ñuy déraper di déraper ak di déraper waaw. Mm-hmm. Euh, euh, ngeen toll ak euh, ordre des bi nga xam ne autorité yi ko doon allo sa yaa ngi koy junj bi ngay tàmbali. waaw en fait l'ordre la vraiment la loi a été votée en 2016. Mm. c'est les décrets d'application qui restent. Et moi, j'ai quitté en 2016. Donc, je pense qu'il y a des problème dans le processus qui fait que moom dafa tardé. Mm-hmm. mais li wóor te wóor mooy dafa nekk arme boo xam ne autant day protéger sage-femme yi que day protéger usager yi. donc li may wax rek mooy toujours nañu def de sorte que cet ordre-là puisse être mis en place avec les instances. Mm-hmm. ndax ordre bi dina corriger yenn comportement yi par exemple. bu fekkente ni génn nga école am sa diplôme wala nga am sa licence parce que actuellement c'est la licence avec les 180 crédits alloués lors des trois années normalement or daf la war a jël nga inscrire soo inscrire après dañuy xayma mhm. nataat say compétence nataat say attitude mhm. dooga ni nag yow war ngaa mën a servir mhm. donc l'ordre ma semble assez important par rapport à notre profession mm Fati. Mhm. voilà voilà. alors man fu ma fu ma bëgg a ñëw rek mooy euh, d'abord di di profité ci journée bi di jaajëfal sage-femme yëpp. Mhm. ndax on ne pas jeter en pâture toute une profession. ndax am na ci ñu nga xam ne. wax mhm. dëgg yàlla ñu ngi def seen liggéey nu mu waree. comme il faut wax dëgg yàlla liggéey bu noble la. Euh, te dafa am lu nga xam ne tamit euh, jamono ji yëpp ñu ngi koy wax ñu ne il est inadmissible. de per la vie en donnant la vie mais lu ci bari aussi ci condition matérielle ak peut-être euh, morale liggéeykat yi def ci jouer tey jii condition yi nga xam ne moom la sage-femme di di liggéeyee ci Sénégal hmm. ci wàllu xayma yan jafe-jafe dëgg-dëgg ngeen di jànkoonteel ba situation yu mel nii di di faral di am man nag j'ai l'habitude de dire que di conditions yi ñun on était dans des conditions piir waaw ñun dañ daan raxas gant xam nga gant gant yi ñuy touché mm-hmm. dañ ko daan raxas bu ñu ko raxasee dañ koy talke fëgg ko ëlbati seetaat beneen malaat mhm. boîte d'accouchement benn wala ñaar pour trente accouchement mhm. dañ ko daan raxas eau de javel ko teg lii les malaat ñëw accouché ñu kii donc les conditions ont été un peu améliorées mhm. néanmoins il faut se dire que ni salaire bi baaxul le salaire le salaire le salaire c'est le nerf de la guerre euh, su sage-femme demee bay nangu cinquante mille francs oh. non non non. <laughs> c' est extraordinaire. te na ci réew mi. te am na ci réew mi ñu tuddee leen ay sage femme communautaire. c' est grave. sage femme cinquante mille francs cinquante mille francs moom ngay fay sa bon. et tout le travail que ça demande. et tout le travail que ça demande. ak stress bi non au-delà des risques booy que la vie coûte cinquante mille francs. c'est merci. Mm-hmm. <laughs> mois oui. il s'y ajoute que en fait tu es deux sages vous êtes deux sages-femmes en salle d'accouchement vous avez pléthore de malades. donc la charge de travail man wóor na may wóorum yaar bu ñu analyser woon le côté sociale mhm. la charge émotionnelle mhm. que vivent les sages-femmes mhm. kon kenn du leen jeter en pâture dëgg la beneen bi ci des mooy nous sommes dans l'intimité des femmes dans l'intimité des femmes tout se passe et pourtant on ne le dira jamais kenn du ko mos a wax kenn du ko mos a ŋaan et il y a même femmes yoo xam ni wéq nañ leen wala ñu bëmax leen ñu avorté et moi j'en fais partie wéq mais da ngay xam ni kii douleur a tax mu wéq la mais doo ko dóor donc les conditions encore une fois se sont améliorées mais ça reste à parfaire mm-hmm. et la première des choses les études ont montré que la satisfaction au travail mm-hmm. dépend du salaire Très bien. Et il faudrait qu'on aménage pour que le salaire soit mm-hmm. décent, pour qu'il soit à de tout ce qu'on nous dit tout à fait dañuy jodd dañuy rançonner malade yi dañuy def lii dañuy def lële loolu yëpp il faudrait que le salaire suive pour que vraiment la qualité des soins mais bëgg nañoo xam surtout importance u sage-femme ci système de que comme bis bi la quand même ñu rendre hommage malgré liñ fi loo xamante ni mois bi c'était difficile pour les sages trop difficile mais le problème qui se pose mooy que ni Euh, sage-femme rôle dafa complexe et compliqué parce que suñu demee si suñu confédération internationale des sages-femmes nous avons huit compétences mhm. les huit compétences maanaam huit euh, juróom-ñett yoo xam ni mhm. sage-femme bala muy génn il faut mu mhm. xam ko sage dina def prévention maanaam aar lu ñëwagul sage-femme dina faj mais sage-femme dafa am rôle d'information Mm. excusez rôle d'accompagnement mm-hmm. rôle d'aide mais aussi dafa am rôle administratif mm-hmm. rôle éducatif mm-hmm. et un rôle de recherche donc yooyu yëpp daf ko war a def c'est ce qui fait que euh, les ONG on investi dans les sages-femmes parce qu'ils se disent que l'accessibilité maanaam sage-femme pajum sage-femme mu jotee ci gox yi ak goxaan yi day tax ndeete jigéen ñi wàññeeku. et je l'avais fii waxoon naa ko fii wala feneen ma ni ndeete astu bi moom dafa am loo xam ni pendant longtemps peut-être trente ans ñu ngi ciy xeex mooy les retards. Mhm. retard yooyu troisième retard bi moo tax ñu ne c'est un décès évitable ndax nit bu xasee ba jëw ci biir hôpital bi normalement. war nañu def tout yàlla nag mooy rey. très bien mmh. dernière question ci Cheikh Tidiane euh, euh, madame euh, ci weer bi am na fi benn journée bu doy waar bu fi amoon muy journée sans accouchement ci maternité yi yow en tant que sage-femme naka nga dundee woon loolu te est-ce que ci sa bopp maanaam émotionnellement yaakaar jàpp nga ni lii lu war a mën a nekk la ci réew mu mel ni Sénégal. man dama doon ñaan yàlla ay accouchement sax bañ a am bés boobu. ndaxte j'ai dit man de sore aurait été moi j'aurais privilégié le dialogue avec la communauté maanaam man du ma ni sage-femme yi bu leen dem liggéey ndax jigéen ñi ñoo tax sage am population moo tax sage am ni ma ko dundee nag metti na ci man trop te wax naa ko fu ne nee naa c'était pas à décréter en ce moment là syndicat yi ñu ngi doon grève donc waroon nañu mouvoir ci syndicat yi. Mm-hmm. def la service minimum. très bien pour que sauver ay vie mm-hmm. moi je l'ai vécu la mort dans lam mm-hmm. parce que c'est naka la wasin méttee ak amoo foo jublu dafa metti trop trop trop trop trop et j'ai dit même lii ñu def nii di dem ak a dellu si il suffisait tout simplement que ñu waxtaan ak population bi waxtaan ak les parents de la défunte parce que tous les jours ni ñaa ngi gaañu tous les jours nit ñaa ngi faatu de n'importe quelle manière nit mën na xëy sax di jullit gaañu mm-hmm. mais ñu dem waxtaan ak famille bi waxtaan ak population bi ubbi leen buntu yi waxtaan ak ñoom comme ça vraiment les gens ne seraient pas aussi acerbes à notre égard mm-hmm. voilà Chérif il est l'heure mais bàyyi nga door bu ñaa bi rapidement semaine passée bi affaire bi amee nga intervenir fii TFM nga ne dafa am ñu la doon saaga ci réseaux sociaux ay sage-femme ba saisir nga division cybercriminalité ah. Mm-hmm. Ah oui, oui, oui, parce qu'en fait, moi, di dit que j'étais contre le, la journée sans sage-femme. Mm-hmm. la jour la, la, la, maternité sans sage-femme pour une journée ou 48 heures, ah j'étais oui. contre. Mm Et d'autre part aussi, dama ni nit ñi nañu def introspection ku nekk li ngay def lu baax xam nga ko. tout à fait li nga dul def te baaxul xam nga ko. lu lu ma ci fekk mooy ñu yóbbu ma ci réseau sociaux yi sosal ma sos yu garaaw. wax ni man conseil ministre la sama goro mooy gynécologue bi moo tax ma couvrir ko alors j'ai dit moi où est le gynécologue heureusement que la sage-femme en détention a dit qu'elle n'a pas appelé le gynécologue et le gynécologue en question dont elle parle c'était ma belle-fille mais am na clinique am dem na bu yàgg depuis sept ans elles ont parlé de mon école que les sages-femmes doivent sortir parce que damay xas sage-femme yi et cetera et cetera. elles sont même parties jusqu'à dire que quand j'étais kii bi ma nekkee présidente je suis restée dix ans avec les vieilles sages-femmes bi may kii et cetera et que c'est les jeunes qui m'ont déniché et cetera. il y a tellement de choses qu'ils ont dit. Mm. je me suis dit que ni nag réseaux sociaux yi baax na lool waaye savoir raison garder. moo mm. tax nag yóbbu naa leen cybersécurité. très bien. Ouais. très bien et puis euh, sànq euh, ñi seetaan ñëpp nee nañu euh, génération Mariam Fall waruñu waruñu woon ginnaaw centre de santé gis nañ la yaa ngi yor sa école di formé mais sa yeneen naataangoo yi nga xam ne yi ngi doon exercer c'est vrai que vous méritez quand même un repos paisible dem toog noppalu mais fi jamono toll dañ leen soxla ngeen accompagner les nouvelles génération fukk bi ak yëpp quand même moi j'en ai parlé j'en ai parlé avec des groupes un groupe dama leen wax ne leen mhm. ñun expérience bu ñu am bu ñu fayul dara sax confier nu mhm. le renforcement de compétences des mhm. sages-femmes. Mhm. ne serait-ce que sur le plan comportemental. on allait le faire sans demander zéro franc. très bien. merci beaucoup euh, euh, soxna Marième Fall un discours responsable et courageux ñu ngi lay jaajëfal waxtu bi moo jot malheureusement bëggoon nañu gën a euh, yaatal waxtaan bi ñu ngi lay jaajëfal et puis bon courage et très bonne journée on vous célèbre encore une fois pour le travail bi nga xam ne def ngeen ko ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna Marième peut-être que je vais te laisser le serment de la sage-femme d'accord avec plaisir c'est très important. avec plaisir ni mu amee bàjjenu gox. Mhm. noonu la war a am bàjjenu maternité. <laughs> wax nga dëgg nag. tout à maternité dafa war a. le serment mhm. euh, liggéey bu am solo la ñuy def bàjjenu maternité bu amoon. malheureusement on n'est pas très compris par la communauté parce que sage-femme bu ñu toogee ba di dóor. Mhm. ba pare ñun sage yi les femmes ne viennent pas nous voir. pour jàppale ñu ci xeex boobu aussi ça pose problème. Mhm. ana maramati. très bien. ma liiral leen kii bi rek. tuuti la lu tuuti la mhm. mhm. hmm? il faut lever la main droite dit-on. ils disent en présence de mes maîtres de mes chers condisciples. et dans l'esprit des grandes accoucheuses qui aidèrent au progrès de l'obstétrique je promets et je jure d'accomplir mon rôle de sage-femme dans l'honneur, l'amour et le respect que l'on doit à la mère et à l'enfant. Mhm. Je m'engage à chercher sans cesse à me perfectionner mhm. en suivant l'évolution de la science obstétricale. Mhm. Je jure de consacrer ma vie dans les règles de la morale la plus sévère à l'application des lois protectrices de la famille et je vais je fais ici le serment solennel que l'exercice de ma profession mm-hmm. ne servira jamais le crime. Mm-hmm. Que la société m'accorde son estime, si j'y suis fidèle, que je sois couverte d'approbre mm-hmm. et justement châtiée si j'y manque. voilà le serment de la sage-femme. merci beaucoup et que ce serment là bu ñu ko doon def rek suñu bopp. ah oui. dañuy liggéey convenablement n'est-ce pas waaw kon problème yi mën na bañ a am merci beaucoup très content de vous avoir <laughs> ouais. c'est c'est toujours un plaisir hein beaucoup de retours ci ci sa parcours ak euh, li nga def ci liggéey bi merci beaucoup et puis gis nañ sànq quand même témoignage bi euh, ak euh, émotion bi nga àndaloon un peu ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna Mariem merci beaucoup Fall très bonne journée jërëjëf ñu dem ci ñaari yéenekaay ku Futurs Médias muy l'Observateur ak Record